li rasa as weccat nay sow bu xiifee ne jaaral fee nga jëndal ma nga indil ko jaaral fële nga indil ma yóbbul ma demal ci madame ñaa nga yóbbulal ma ko lii nga am yóbbulal ma nday sow mu yóbbu mm. pour man loolu mm. moo jaatu c'est un cri de cœur mm-hmm. parce que dañ ah, ci xam ay nit lañu wax noonu la <laughs> nit ñi amatuñu temps

amul cag-cag buy si chômer mm. soo amee sa carte d'adresse fii ba tëngéej da ngay dem mm. mais taxe bi moo jaaduwut mm. loolu la war a teg ci suuf benn taximan nee na dafa taxaw euh, Padois jour férié bi mu taxawee Padois xale bu jigéen buy dem marché Thiaré daan ne euh, bi deux mille cinq cent kooku ne ko ba mu fayul waatal ko ne ko ba mu fayul quatre mille du la yóbbu mm. taximan bi nee man mi di man mi jàkkaarloo su ma fayoon deux mille ma deux ko caaroy mm. parce que circulation amut amul woon mais elle a mil quatre yéeg ci jakarta man bi moo ko gën a xaw ma xaw ma man daal comprendre moom lan ban sensation la bu war a tax nit ñi dama koo ragal damaa gis ay yu bon yu mu def. waaw dëgg la mais xoolal joué katu théâtre boobu dëkk nekk ci benn théâtre ku sant Njaay la xaw ma bërki

fi mu dem nu mu tudd boo maraîcher. boo maraîcher di defante euh, chauffeur yi. waaw daf leena warone wax ne yéen seen auto yi baaxul. da maguette auto yooyu nan la def ba jaar. Euh, visite technique <laughs> lolou la ñepp di laaj. c'est un cri de cœur. ah parce que si yéen la jaar visite technique nak xaj mais kon ba tey daa ñun xolal xam nga man soo may wax le passé sama xol day. ah mais parce que ah yéen nag da ngeen ñëw voilà xam nga le passé yéen la. lu fi nekkoon yëpp. man gis nga le Sénégalais comme ça c'est vous. donc nag si moi le trois mois mënoo leen juger naa li ma lay wax ni ah. luma yag di wax la man lii may wax ni dama yàgg man que ce soit avec Macky Sall que ce soit avec Wade ko meunti don j'ai toujours dit que je vois des voitures yo xam je me demande comment ils ont fait pour passer physique technique mm. kooku moy rombu policier mu tal loxo policier policier bi talako loxo mu dem mu dem mais xamante Njaga Njaay car rapide sept places waratuñoo daw yëpp dina jeex xamal ne la Njaga Njaay Njaga Njaay seetaan na mi eh, frère hmm. hmm. bu ko moom di maa ngi lay nuyu monsieur Ndiaye maa ngi lay nuyu mais nag te mais boo déggee ñu ne leen change jële leen fi doo leen fi jële yóbbu nit ñi au chômage wala eh, yàqal borom yi da ngeen ni waxtaan ak waa kër alaaji Njaga Njaay yi ko moom ñu waxtaan ak yéen ngeen ut solution hmm. remplacer leen seeni oto ainsi que les tata am na tata yoo xam ne kenn waxatu ko car rapide yi même chose da ngeen di woo seeni boroom ñu waxtaan ak ñoom te njaga ñaay benn famille kese ko moom mm. amul ñaari nit amul ñetti nit mm. téeméeri njaga ñaay bu fi amee benn famille ko moom sama xarit boobu moom ñoo ko moom mm-hmm. waxuma ne ñu jëlee fi njaga ñaay yi <laughs> ma doo leen am si loolu sa xarit la boo toggee leeral jarul leeral leeral mais dina am échange mm-hmm. benn taximan keroog ñi ngi waxtaan nee na mm-hmm. euh, oto yi naan huit ans bu mu dugg nee na yooyu bu duggoon oto yu bëri dina mën a dégager na ñëw jël ay sanctions teg ko ci lépp loo xam ne yaa ngi daw te waroo daw mhm. am na oto yu daw yu warta daw mhm. bi may njëkk a am permis boobu j'avais j'avais dans les dix neuf ans vingt ans ñu ma jënd benn Honda dajale jënd bana la ko benn Honda Honda bu rafetoon la bu xew waaye Honda ba de karkaasa mhm. ndax nga ko njëkkoon a am da koo dawala dawala moom sonn mu nekk ki gëla gëla rek benn xur dabb waaye ki ma ko jaayan HLM la dëkkoon Rhône sama benn càmmi bu dëkkoon HLM euh, bu dëkk HLM 1 mm-hmm. mais gis nga biir HLM rek laa koy dawalee benn mm. Honda bu bleu la woon ma penti ko rouge damaa yàgg bëgg rouge mm-hmm. xam nga xale bu yor oto rek ah. maa oto bi ci biir HLM gi rek li <laughs> woon daal daal ah, oto bi am xottu la mm-hmm. mais man bëgguma ot lu maa rafetul daal cib dëkk pare wóorul cib dëkk voilà man daal. amee ah, dinañ ci dinañ ci def ñu. cri de cœur la boo xam ne daal ñu ngi koy sànni. Euh, booy boobu nga xam ne dafa dëgër bopp. Oh, si signal nañ ko signal nañ ko pétition pour mu pour mu bàyyi mais comme que démissionné wul geddut te nee nañ nit gas gor moom sa loxo moom. bu setee da nga ko xam na waroo toog daal ba ñuy wiccax sa loxo bi loolu la waxoon Mansour waaw mooy bi de bi fi dee yi bëree rek te saa yi ba ñëwee nga faral ko loolu dee ma naqaree man dinaa ko faral parce que wax dëgg neex yàlla day liggéey wax ju bariwul man loolu rek a ma neex si moom ñoom ñoom sax xam nañ ne ku si def loo xamante ne neex ma dama koy wax. baax na waaye nag moom day liggéey wax ci bariwul. kon baax góor te mu daal man bi li nga xam ne daal ñun franchement ñun bëgg nañ ko. Mhm. Euh, bien vrai que nee nañ comme li nga wax ñi fi nekkoon ñoo ko fi bàyyi. comme que l'État, c'est une continuité, ah. maintenant, il, il, a, il, aura largement le temps. Mm. On parle des cas rapides, on parle des Niagagna, on parle de cette place. Mm -hmm. Cette place, moi, là, au fibre, FIBE, non, <laughs> fait cette Non, non, c'est déjà. Mais bon, par exemple, nous avons dit que en bagage. Mm-hmm. Fait bagage. Kuitu que en bagage. Kuitu que en balise. Bien sûr. Dans en yere. Ah. Wale, là, il faut ça, il faut essayer. Là, là, mais. Mais là, c'est qui que ça l'a amené? ci fan période de fête rek ñoom lañ koy def tamit. kon yow wéeroo di c'est kon yow wéeroo di. Hmm. heure booy tukki boo yoree valise da ngay fay valise bi day fay. musuma dund loolu. fan musoo dem boo maraîcher. ah kay mais musuma ko dund. foo doon dem. man sama dem yëpp soo Kaolack la ah. yo valise. Mhm. duñ la valise bi day non non non ah, man gis na valise fay. valise pour bu événement tabaski. la waxuma la événement wax événement. dama la waxuma la événement. c'est anormal aussi même événement ça du la nit kuy tukki am mhm. bu excès bu la peut-être mais kuy tukki am valise. valise kuy tukki am valise mu rëy mu mag kuy tukki am valise maal ba pour valise yi la. te ñoom sax dañuy kii dañuy dañuy defaale cag cag de dañuy dañuy defaale livraison dañuy def kii te kon oto ba fees na ba ba rembat. ndax dañuy def kii GP. waaw GP. xanaa kon oto ba bu dee jël sept place ñoom ñu def juróomi GP jël na ñaata nit kon. àll ka mojjo yàlla bëri na sutura euh, ñu ñëw si li